Rachida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi siyaare suñu bokki taalibe yëpp di siyaare kilifa yi nga xam ne ni ñoo teewee jataay bi sëñ Abibulahi Mbàkke mi nga xam ne mooy jiitu Tuubaa ci kanam ngi koy siyaare di ko jaajëfal ci teewaay di nuyu bu baax sëñ Abdoulahi Mbàkke mi sëñ Abibu mi nga xam ne mooy jëwriñ di liggéey bi ak alaaji sëñ Tàkkum Cheikh Modou Fadal président Serigne Abdou Fatah Gueye waaye di nuyu soxna Bintu Mbacke mu Serigne Abibou ak mboolem soxna yëpp fu ñu mën a nekk di ñaanal bu baax si Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko xam naa kàddu yi nii yëkkati dañ koy tàmbalee ci ci moom ndax ni mu baaxoo jëflante ci lislaam bépp waaye rawatina ci Touba ci kanam gi ci mboolem mbir moo xam ne dañ ko dañ ko sumb rawatina ci commission bi nga xam ne mooy commission sociale bi nga xamee ne nekk na Cheikh Mamadou Mbassir Cheikh Mamadou Mountakha liggéey bi tàmbali baaxoo woon na at mu jot mu mu jaayantel boppam waaye jaayantel juróom-ñeenti murit yoo xam ne nii am nañ yéene seen kàttan may mayewu ko juróom-ñeenti bi nga xamee ne doon na Serigne Touba Cheikh Cheikh Mamadou Mountakha itam gis ngeen ne mi ngi def at mu jot juróom-ñeent ak juróom ak moom muy téeméer waaye loolu rek doyoon na sëkk waaye taxul lépp lu ñuy yëngu rek moo cay njëkk moo cay man ci ni mu ko defee woon ci koor gi joxe woon ci téeméeri barigoy dugub ak téeméeri barigoy ceeb noonu la ko defewaat ci tabaski gi muy téeméeri barigoy dugub ak téeméeri barigoy ceeb ñu ngi koy ñaanal suñu defal ko mu yàgg fi loolu téwér xam naa cant ga war ca moom dañ koy bàyyee kilifa yi li nga xam ne moo ñu dajale fii tey nag mooy li nga xam ne moo ñu fa baaxoo dajale buñ tolloo ci di waajal tabaski te mu doon sunna soo xam ne nii dafa war ci képp koo xam ne nii ab jullit la as la te man na ko mu am ci yoo xam ne dañ koo sopp ci bisu tabaski yi bokk na ca nag muy ay yére yu yees ci ko ko man tabaski léppam sunna la wa man yarxabu an millati ibrahima ila man safia sax loolu moo waral nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi wax at mu jot bu dellusee ñi nga xam ne ni yàlla xaw na xaw na leen koo man loo ñu gestu seen bokk yi nga xam ne nii ñoo nekk ci dëkk bi te suñu borom def seen loxo jotu seen ginnaaw ndax li ma waxoon rek dëkk bi dëkkub sunna la wa daara sunnatin wa man jan bin bi dax loolu la suñ boxoon waccal binaa iya binaa xilmi wa xamane bi sunnatin wa xilmi loolu noonu ma waral ci yëre yi nga xam ne nii moom lañ baaxoo laaj muy yëre yu yees yoo xam ne danañ ko mën a jottali suñ bokki taalibe yi bañ ko tàmbalee dañoo wowoon association tailleur ci njiital Serigne bay Sarr ak association bi nga xam ne mooy CMD ci njiital Serigne Baye Ndiaye ak association centre euh, Mbacké marché central ci njiital suñu xaarim sow ñoom nag jëloon nañ fi ay yére ñaari rull yu toll cinquante cinquante cinquante morceaux yenn yi ay bassin la yenn yi nekkoon ay super cent ñawoon nañ ñu lu toll 468 pièces yoo xam ne ni yére yi mi ngi tàmbalee zéro ba 15 ans gone gu amagul at ba keroog nga am fukki at ak juróom ñawoon nañ ci yére yu góor yi tamit lu toll 669 yére yu góor kon li nga xam ne moom la tailleur yi ñaw mi ngi toll ci 1137 ñawal nañu junni yére ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar yoo xam ne nii ay yére góor la ak yëre jigéen te lépp tamit yu yees la li nga xam ne suñ bokki taalibe ñoo ko dajale muy ay yére yu yees yoo xam ne dañ koo ñaw ba noppi indi ko loolu lim bi xaw naa takk waaye dañuy ñëw ci li nga xam ne moo fi dajale lépp li nga xam ne moom lañ am ci ay yére li nga xam ne moom lañ am ci ay yére yu góor yoo xam ne yére yu góor la ñu ñëw ko ba mu sotti mi ngi toll ci 2544 ñaari junni yére yu góor ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent li nga xam ne moom lañ am ci ay yére yu jigéen yu ñëw ba noppi mi ngi toll ci 19182 maanaam fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar li nga xam ne moom lañ am ci ay yére xale xale yu góor ak xale yu jigéen mu ngi toll ci 6956 juróom benn junni ak juróom ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn am nañ fi itam ay ay yeneen xeeti xeet yoo xam ne ni dafa jëm ci lu tolloog ay dàll lu tolloog 917 dàll juróom-ñeent téeméeri dàll ak fukk ak juróom-ñaar am nañ itam ci ay rido lu tolloog 132 téeméer ak fanweer ak ñaar am nañ itam ci ay écharpe muy col yi nga xam ne moom la ji suñ suñ bokk soxna yi tegoo lu toll ak fukk juróom benn am nañ ñetti serviette am nañ lu toll ci ay tiis yoo xam ne dañ ko ñëwagut am nañ ci lu toll ak 601 juróom benn téeméer ak benn ay dara muy dara bi nga xam ne dañ koy lal ci lal yi am nañ ci lu toll ak 80 juróom-ñett takkaay tamit am nañ ko fi am nañ fi tamit lu toll ak 27 morceaux saabu ak benn parfum ak lu toll ci juróom fukki saak amee ak benn li nga xam ne moom lañ dajale ci ay yére ci bis bi may waxe démb ci guddi du tolloog minuit li ñu jotoon am ci ay yére mi ngi toll ci vingt-huit mille six cent quatre juróom ñaar ñaar fukki junni yére ak juróom ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar mooy li nga xam ne moom lañ dajale ci ay yére yoo xam ne dañ koo ñaw ba noppi bokkul nag ak yére yi nga xam ne ñëwagul yére yi ñëwagul moom am nañ ci lu tolloog juróom benn téeméer ak benn kon ñu ngi daanal foofu suñu kàddu li ci détails yi xam naa suñu béy si dana ko àggal maanaam commission sociale nag comme ni nga xamee Touba Ca Kanam noonu lay doxee Touba Ca Kanam li ko tax a jug mooy defar dëkk bi ak jàppale ñi dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi nag mooy làmp yi ngeen gis ak poste santé yi nga xam ne nii ñu ngi koy war a tijji suba sax incha allah am na ñetti poste santé yu war a tijji ñu ngi koy yëgalaale bokk taalibe yi ngi koy jëlee ci ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj par weer bu nekk bu dee commission sociale nag li nga xam ne moom la ñuy jàppale nit ñi ab jaayante lay doon boo xam ne nii lu waaye man rek man ko cee dugal maanaam amul xeebuñu ñu lu tàmbalee ci dërëm ba ay milliards lu ci waaye indi rek ñu mën koo defal ci dëkkandoo yi waaw mbir mi moom ni ñu koy distribuer comme ni commission sociale baaxoo distribuer rek lu lépp lu muy séddale mooy xool ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo ñi nga xam ne ñoo ko gën a yayoo ñu dem jox leen ko loolu nag niñ ko waajale niñ ko ni sëñ bi tuddee mu nekk nii ay mbuus ñu waajal ko mbuus bu nekk fi nekk nii def nañ ci fukki yére am na yére góor am na yére jigéen am na yére xale am na yére yére ko ngi ci biir ñu waajal ko muy fukki yére niñ ko baaxoo séddalee nag dañuy def dem ci quartier waajal nañ ay oto yoo xam ne dañuy tànn ci sancaan yi ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo ñu sarse def délégation benn bu ñu nee ba ca quartier ba oto yi tasaaroo dugg ci biir quartier bi ñuy jël pari mbuus fekk ndaw am Pastef yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal liggéey bi la ñuy ñu dugg ci biir quartier bi jël ay mbuus waaxu ba ci kër laaj borom kër gi mun ne ko mi ngi nii ñu yëkkati mbuus gi teg ko ci loxoom moo xool na mu koy séddalee ak waa këram noonu lañ koy séddalee yëre yi li muy bari bari bari yëpp nekkul nag ne dañoo woo nit ñi naan nañ ñëw ca sees ba wala nañ ñëw fii ci magasin bi jël si déedéet dañuy dem fekk nit ñi ci quartier yi di leen ko séddale noonu la ñuy. nu ngeen def ba xam ñu ko yeeyoo waa niñ ko xamee ndax jamono ji nekk dañuy def ay visite de terrain ndax boo gisee lim bi nga xam ne sëñ bi tudd na ko ñoo xam ne dañuy sàkku ndimbal ci wàllu faj am ñoo xam ne dañuy ndimbal ci dëkkuwaay am ñoo xam ne ñu ngi sàkku ndimbal ci seen néeg yu seen am ñoo xam ne amuñu ay wanag déplacement yooyu nga xam ne jamono yu nekk commission sociale ak Touba ci kanam ñi ngi génn di dem di fekk nit ñi moo tax daanaka lenn lu ci nekk xam nañ fa mu gën a méttee donte kon xam euh, ñu bari yittewoo nañ ko waaye xam nañ fa nga xam ne ñu bari ñu ko gën a yittewoo fa lañ nekk foofu la ñuy sukkandiku ndax fu mu doon ci quartier yu wuute dem nañ fa lu ëpp fanweeri quartier ak juróom bu dee ci ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo wéradi dem nañ fa waaye ci ci benn mois bu rek laa laa wax ñi nga xam ne dañuy sàkku xadd dem nañ ci ñoom 18 quartier ñi nga xam ne dañuy sàkku ay ay ay wanag dem nañ ci ñoom fukki quartier ak ñaar yu bokkul te jamono ju nekk ñi ngi gën di dem ci quartier quartier yëpp la ñuy dugg ya gën a sori ba ci yi a jege moo tax moom ñi ko gën a yittewoo moom commission sociale xam na leen bu baax a baax waaw bu ko defee nag kon ñu ngi li jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi rawatina nag suñu mbokki téer yi suñu mbokki téer yi ak diaspora bi suñu mbokki téer bi ak diaspora ak waa presse bi nga xam ne tamit fu liggéey bi ak yéen a ko fa àggale ngi jot li communication ba nit ñi yëg ne liggéey bi xam tamit tolluwaay bi waaye ngeen di taxaw fu ngeen toll di wane fi nga xam ne li ñuy liggéey fa lañ koy dugal ndax dañoo wax laaj luñ am def ko ñu xam waaye xamle gi moom yéen waa presse bi la yéen ay xamal nit ñi li nga xam ne ñi ngeen koy jox fañ koy dugal kon ngi leen di sant waaye di sant suñu mbokki soxna yi bu baax baax a a baax a baax bàyyiwuñ kenn waaye ñi ngi santaat borom kër gi ak di santaat borom kër gi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo muy sëñ Talla Fall nga xam ne bi magasin bi feesee démb ci guddi bagage yi ñëw amuñu fuñ ñu biñ demee di wax waxi lu dañu jox na ko sëñ Touba aal nañu ko nga xam ne fi ne bagage yu bari àggagu leen fa waaye ma nga fa ñu ngi koy sant bu baax di ñaan suñu borom yokk ko kattan téer yi nag xam naa jataay bi xat na moo tax mënuñu tudd ci lim waaye muy téeri Touba ci njiital sëñ Mbaye Sarr muy téeri Mbàkke yi ci kenn daal liggéey bi rafet na set na ndax defe nañ ko yéene ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah xam ne lu am dañ ko war bokk suñu bokk julli yi lu am dañ ko war bokk suñu bokk tali bi kon nag alhamdulilah maanaam ne yéeg-yéeg boobu bi ko waa Touba ci kanam amee ba taxawal lii ñu taxawal waaye alhamdulilah maanaam bi ko bokki tali bi yëpp amee ba tax weston bu ne jëlee nañ fa ba bitim réew jëlee nañ fa ay yéeg indi ko ci social bi kon ñooñu def loolu nañ xam ne seen jëf jooju yàlla mi tax ñu def ko ak jëmmi sëñ ak sëriñ Touba gis na ko yàlla na ko nangu te fay leen ci lu kawe seen njort ci bàkku sëñ Touba te xam ne yoon waa ngoog dog nañ ko te buñ ko wàcc ndax joxe day tax am waaye du tax a ñàkk ndax suñu borom moom lu mu daale mën na ko te te dana ko def ndax wax ne wax nit ñi ne danaa leen defal nangam te du ko def moom du ko ci fekk ndax moom moom lépp su ko da ko ci ne ko danaa leen def naa def nangam te moo ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu bu lu ngeen joxe ngeen man dundale ko danaa leen wutalal loola te buy wutal lu gën waxu waxee waasixiina mooy kon lu gën lay doon ndax ndax moom mooy ngeen ji koy wërsëgal kon buy wuutal la gën la fa nekkoon la lay lay joxe kon liñ ci joxe rek xam ne suñu borom danañu wuutalal lu ko gën fopp kon buñ buñ tay ci joxe bi buñ yokk ci joxe bi nañ fa séenee lu ñu laaj nañ ci def lañ mën ngir jëm ngir yàlla ak jëmi sëriñ Tuubaa rawatina nag ku koy def ba noppi jaarale ko ci sëriñ bi ndax moom jëfam yàlla daa nangu lépp lu jaar ci moom suñu borom nangu lépp lu adressé sëñ bi rek jëpp jëf joo jëf sellal ko te adressé ko sëñ Tuubaa deesu ko seet sëñ Abdou Lahad daana misaal ci lettre boo bind président de la république nee na kenn fu mu àgg fexe mu gaaw jàll waaye kenn ñimewu tepp te àggu ci président nee na jëf ju la mel li fekk àggu ci nga xam ne muy jiite communication waaye nag woo mbooleem ak sëñ Bakki Sëy mi nga xam ne moom mooy taxaw ci montage yi ak ñu ko àndal ak sëñ Cheikh Amar waaye nag di sant yi da waa presse bi wuy si bépp nga xam ne lu kanam di def danañ ñëw ànd ko ñu jël ko jàllale ko kon yéen ñi ngi leen sant baax di gën a tàllal loxo ci liggéey bi dina xam ne liggéey bi noo yéen noo ko bokk liggéey sëñ Tuubaa rek la kon lu ngeen mën ci yaatal ko ak jàpp ci na ko def te kenn ku ne xam ne la nga cey def donte sa métier nga xam ne mën nga caa am yàlla am ci sëñ bi kon ñi ngi leen ci sant baax di leen gërëm di leen ñaanal yal na yàlla bàkkee seen liggéey defal leen ci tawfeex ak ndimbal ba kenn ku ne la nga ci yéene nga am